wa arshada bihi nnaasa ilaa siraatihi almustaqiim wassalaatu wassalaamu alaa muallimi nnaasi alxayr wa haadi albashariyati ila rushd wa muxriji nnaasi min alzulumaati ila nnuur sayyidinaa wa xabiibinaa wa shafiicinaa Muhammad ibn Abdillahi wa rasulillah wa ala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin wa man sanna bi sunnatin ilaa yawmi ddiin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki àdduna mbokki senegal waaye xaasatan mbokki daara ñu ngi leen boole nuyoo bi ñu yàlla boole di ko teg ci loxo suñu mbokk journaliste yi nga xam ne dañoo am occupé benn rôle bu am solo ci société bi lépp fi jamono toll maanaam information dafa mës am solo waaye rawatina jamono bi ba xataa ci lislaam ndax yow mi dund ci jamono bi te yëgoo ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yónni nañ ko yow yi charia di teg nit ñi yow waragul kon information dafa am solo mais rawatina jamono bi waa daara soxla leen ñu déplacé ñëw ngir daara ñëw ngir alquran kon ñooñu kenn mënu leen a génnee ci may daan ci bayaanu alquran ndax alquran ñeent ko séq ki koy jàngale ki koy jàng ki koy jàngalu ak ñi leen jàppale te ñoom ñi ci ñi leen jàppale la leen kon ñu ngi jël nuyoo boobu teg ko ci seen loxo ngeen wasaaral ñu ko ci mboolem mbindeef rek bu nekk ci àdduna ginnaaw it ma ab làmm ñu jëmee tuma al quran al karim fi kitabi Sénégal dem nuyu suñu kilifaay diine yi nga xam ne bu nit sañee toog di jàng alxuraan wala di ko jàngale wala di jaamu sama borom ànd ak conscience am tranquille dafa fekk ne ñooñu seen coono démb moom lay jëriñoo teg kon ñooñu kenn mënu leen a ginnaawal waaye it nuyu kilifaay aada yi rawatina autorité yàlla dénk réew mi euh, sant yàlla bu baax ñu dalal leen fii ci kër Mbaye Fall ci carte bi ñu tuddee ba nu sant yàlla mais ci daara juddu daara zikril hakim di tarbiyatu wa tahfidu wa taalim sëriñ Abdoulaye mooy porte mbooloo mi leeral na sànq ne jamaaya bi ñi ko tax a mooy ñu ñu recruter ñuy liggéey ci biir daara ji waaye it am na koo xam ne dafa nekkoon ci biir jamaaya bi ñu recruter ko yàlla dimbale ko mu dem ba ci kanam yor lu boppam jotaay bii ndong li jiite daara ji ci la bokk ci jame bi la nekkoon di ànd na ñoom di sottante xalaat ñu jël ko ci daara jàmbur ba yàlla dogal tey mu yor place boppam di ko ñaanal mboolem sëriñ daara ak mboolem sax ñuy liggéey rek kon dafa bokk ci jame bi doxalinam yow directeur bi mu mudir bi taxoo ko jug mais boo fi nekki ba am sa daara da nga nangoo tënk ci norme yi jame bi di doxee da nga fiy des loolu moo tax am na fi ñu yor ay daara ba pare nekk ci jamono bi jamono boobu nag ci bala ñoo dugg ci jëmmi mawduu bi ñu def benn rappel historique bu gaaw sunu xayit sunu soppi ku ñu sëñ Abdul Quddus Silla moom la yàlla dimbale xelam ne Sénégal ñi bokk ci liggéey yëpp am na buum gu leen yeew journaliste yi am ngeen ko maanaam liggéeykat yëpp xataa ci daara ji mudir yi am nañ ñoom am nañ sax ay mais ñun ñi daan jël ñu nekk ci classe yi ci xalq yi di jàngale amuñu ko woon yàlla dogal mu xalaat ci def benn vocalam tasaare ko moo ko seen daar yu bari jot ci mu intéressé leen ñu dugg ci ci gàttal nii la sosoo yaakaar naa 2018 jàpp 2019 ñu dool ab diir mbooloo mi consulté wu dénk ko liggéey bi toll ci at mu jiite ko at comme que ñun mbooloom jàngkat lañ du ñu bëgg kenn nit ñëw rek aaki moom mbir du ñu bëgg muy changé mu jëriñ lu mat at maanaam jeex ñu dénk ma ko man mii ma Alxaaji Biraan Cissé ma jiite ko ñaari at sama mandat jeex ñu dénk ko sang bii di sëriñ Mourtala moom nag ñu ngi ko dénk ci at ndax mandat bu njëkk bi dañ ko def benn at gis na xaw na gàtt bu ñaareel bi ñu def ko ñaari at gis na xaw na gàtt bii ñu def ko ñetti at mbooloo mi boo ko doon xayma ne am na ñetti at yu mat sëkk moom ba dugg ci ñeenteelu yi mbooloo mi li tax euh, boobu ba léegi ñu bëri xamuñu ko ñun dañoo gëm ne kuy yóotu fa ngay dëgg dafa war a dëgër dañuy bëgg a jëmmal loo xam ne suñuy sët saat ëllëg dañ ko fay war a fekk te olof day léebu ne gaawtu ak yàkkante bu juree doom rek ci lay tudd ñu ne nañ lëlu liggéey li mënta ñàkk ba pare doo ko génn ci xalaatu suñu président bi mu ne dëgg la liggéey bi des na waaye nag yéen jot na loolu moo waral ñu ne nañu woo suñu ko journaliste yi am quelques points rek yu ñu euh, weccoo ak ñu kon diiran boobu ci la nekk jamee bi nag li ko tax a jub dañoo gis ne alquran moom mooy ndonal yonentu yi alayhim salaam am yonent duñ ko doon ci xaalis bu mu fi wala kër yi mu fi waaye ci xam lañ koy doon boo ne jëmmi xam-xam mooy alquran moo tax sama borom ne walaakinna aktar naas laa yaxlamuuna ba pare ne yaxlamuuna zaahiran min alxayaati dunya kon bi nekk ci charia boo ko ak beneen xam-xam xam-xam la waaye day mel du xam-xam noonu loolu ñun dañoo gëm ne war nañoo indi suñu participation. ci ndono loolu ndax yàlla dimbale na Sénégal ba sunu mag mu ñu jiitu woon fexe nañ ba njàngam alxuraan sax fi moom alhamdulilah léegi nag li des mooy ñu fexe mu avancé beneen avancé yi fexe njàngin mi gën a rafet alhamdulilah ñu ngi ci liggéey liggéey am solo kuy siibur diggante juróom nang mi at yi buñ doon xayma juróomi at ci ginnaaw boo doon xayma mustawa jàng alxuraan ci Sénégal xayma kay nee nañ booba ci vingt cinq pour cent la toll jamono bii boo koy xayma dem na ba soixante cinq ba soixante dix pour cent ci biir sept ans loolu ñi xam xam nañ ne ab yokkute bu am am solo loolu nag mbooloo mi li bëgg mooy indi participation ci liggéey boobu ndax Jamhiya Mahal Qur'an mi comme niñ ko waxee comme que dafa ëmb ñuy liggéey ci bi daara ji ñu nekk du ma wax ne ñoo ëpp solo ci daara waaye kenn ëpp leen ci solo ndax daara mudir bi mën naa xëy bañ a ñëw xale yi continuer di jàng parent d'élève bi mën naa bañ a ñëw xale yi di jàng keneen ki seen benn actionnaire xale yi ko continuer mais xale bi ak ki koy jàngal bu ñu teewul jàng doon moo tax ñoom ñaar kenn ëpp leen dayo ci liggéey bi waaye dañuy seetlu ne ci daara dafa am donte ci secteur yu bari la waaye rawatina ci daara dafa am ñaar ñu ko sëq gën ci am solo mooy mudir bi borom daara ji ak ki muy jël mu koy jàngale muy ñaar ñoo xam ne ay actionnaire lañ kenn ku nekk fa nga nekk yaa ko wuutu sama mais dañuy gis léegi-léegi liggéey diggante bi xaw a ñagas dañu jàpp ne loolu am fu place ndax kenn ku nekk mënoo ñàkk sama léegi nag ñun ñu amoon ay xalaat yoo xam ne jàpp nañ ne buñ ci bàyyee xel liggéey boobu dana gën a ñoom kon mbooloo mi li ko tax a jug premier ak tam mooy jàngalekat alquran yi ci senegal yépp mu tënk leen yeew leen ci benn bi ñuy nasandoo di noccandoo ndax yonent bi def ne aljamaatu rahma wal furqatu azab nee booloo yér yërmande ci nekk jëmmi teqali ko rek ak mbugal la kon seen bokk na ci li ñu bëgg mooy mbooleem jàngalekatu alquran yi ñu joxante loxo xàcca ndóor dóorandoo ñaareel ba bokk na ci li ñu bëgg mbooleem jàngalekatu alquran yi ñu yokk seeni seen xam-xam yokk seen seen seen saxaaf li ñuy liggéey li ci aju mooy jëmmi njàng alquran mi ñu gën koo xereñe waaye xale yi ñu tiim di def ci ñoom xam-xamit ñu gën leen di maîtriser ba liñ bëgg ñu def ko ci ñoom ci anam bu jàppandi ndax danaa koy wax lu bari ne ñun suñuy maam suñuy bàyyi bi ñuy jàng toona bañ doon daj ñun bi ñuy ñun bi ñuy bañ doon daj xale yi tey yi attanuñ loolu moo tax ñu bëgg seen saqaafa gën kawe bu baax a beneen biit mooy métier mii di jàngale alxuraan ñu bëgg li ñu tuddee lavage ñu ñu càmbar bu baax ba ñi nga xam ne jàngale al alxuraan taxu leen a jóg ngir yàlla ñu rocceeku ndànk ba ñu fi ndax secteur boo dem am nañu koy mbubboo waaye ñooñu la ma leen wax mooy dañ ci sonn te duñ jëriñ kon bokk ci suñu jubluwaay ñu fexe ba aar métier ku ci nekkoon bokkoo ci ñu seet nu ñuy wax ak yow ba nga dem defi leneen képp koo xam ne it commerce wala business moo taxoon a bëgg ñëw ñu wala ne la amul sama benn kilifa doom ji dafa nekk ci marché ba mu yàgg mu ne ko damay jàngale alxuraan ma ne ko bu fekkee alal nga ciy wut bul dem ndax amu ci su fekkee da koy def ci yàlla rek tax demal tirang bu nit ñi am ci kaw suuf jomb kon loolu moo ñu war a poussé ci dugg ci jàngale alxuraan beneen bi bokk na ci. léeg-léeg daara ji soxla ku ko jàngale mu tëb léeg-léeg jàngalekat bi soxla fu mu jàngale en place tëkku pour ñu fexee lii jàppale kon bokk na ci jubluwaayu bi lii kon moo tax yow même yow mii module même yow mii parent d'élève bu toog ne mbooloo mi sama yoon ci ndax li ñuy liggéey bu sottee yow di nga tudd sawal mbooloo moom nag pour nga bokk ci lu bi ci njëkk na nekk Sénégal wala nga dëkk ci réew mi nga nekk ci réew mi ci lislaam nit fu dund ñaar fukki at mën nañ ko askan na fa dëkk kon yow même boolul sénégalais mais yaa ngi Sénégal di liggéey ci alxuraan am fi at jàpp ne fi nga dëkk moo leen ubbi dara ay buntam ñaareel ba pour nga bokk ci mbooloo mi na nga nekk jàngalkat alxuraan mooy aslu ba wala nga doon kuy liggéey ci biir daara ji moo xam dangay ngay toggal xale yi da leen sang da leen sirvin da ngay fobeere ainsi de bu fekkee chart niñ bëgg ab jullit comporté woo man nga respecté ak moom fexe ni ànd ñetteel ba mooy association bi mooy jamono bi dafa am ay carte de membre yu mu liggéey président dana ko wane après bépp membre koo xam ne bëgg na ci bokk ñëw na nga jënd suñ benn carte de membre jamono bii ñu ngi ko jaayee deux mille francs loolu bariwul beneen ba mbooloo ñaara koy doxal mooy dajee ak dajale ñu naan teew ak teewal yow mi ci bokk bëgg nañ saay bu la mbooloo mi soxlaa moo xam jotaay bu muy defee ci groupe whatsapp la na teew ndax léeg-léeg sëriñ daar yi dañoo xaw a ñàkk jot léeg-léeg tout le temps dajee du du du du jàppani moo tax parfois ñu am yu ñu bëgg a waxtaane yem ci groupe WhatsApp boobu wala ñu soxla la ci a palaas soxla la Dakar wala feneen su boobaa dañuy sàkku tamit yow nga ñëw tey foofu ndax mbooloo mi yàlla dimbal na ko ba tënkee nañ ko noo xam ne am nañ bureau national waaye am na ay régions yu ëpp am nañ fa ay bureau Thiès am nañ fa bureau régional Dakar gi am nañ fa bureau régional Louga am nañ fa bureau régional Diourbel mooy région de Diourbel am nañ fa bureau régional ñeenti région yi amagum nañ te bu li ñuy ñaan yàlla bu sotti mooy région Sénégal yi département yi chaque commune ñu am fa biru pour liggéey bi gën a kon lii bu fekkee président amul lu ma bàyyi mooy yiñ ne woon nañu woo suñu mbokk yi su ko defee tabaaraka raxmaan ñu sotti xam beneen bi gën caa am solo mooy am njàng dafa am fu mu toll du ñu naan léegi ne xale yi coono biñ mag ñi attanu dem attanu ko tey waaye dafa am loo xam ne dafa bàyyi war ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel man jàngalekat bi ak yow mudir bi mooy Sénégal réew la moo xam ne boo ko xaymoon li ëpp ñoom ay jullit lañ kon man ngoo wax ne réew jullit yi te doomu jullit yi cent pour cent ñoom ñëpp dañoo war a jàng alquran kon nu ñuy def mooy daara yi il faut ñu nekk fi ci yenn daara ay tibu daara benn muy internat daara moderne yi ñu xam wala mu nekk daara cosaan buy bay wala buy yaran wala yi ci aju ndax li waral loolu mooy tey ñu internat yi xam nañ ne boo doon xayma Sénégalais yi li ci mën a fay ci internat matul 10 pour cent 90 pour cent yi des nu ñuy def sama sëriñ moo ne xale bu ne kem sa moyen wooy jur nga jàng li may jumloo wax mooy daara ji internat bi daara ji bay daara ji yoon bi ci jàkk ji yépp daara lañ tudd daara boo ci jàppale jàppale nga yëpp daara boo ci xeex xeex nga yëpp ndax sama borom moo ne min ajjil zaaji kon tabaaraka rahmaanu lii ci tënk lool daal taabu xat lii ma waral nañ woo suñu mbokk journaliste yi soxna ko xalaat ba ci jub sama borom la lu ñu dëng suñu gàtt aleykum salaam wa wax wa barakatu